salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu bokk yëpp di leen siyaar di leen ndokkee nga xam ne moom la dëmbal moo dugg daaw ëllëg ne fi ci jumaay Tuubaa ànd waa muqaddamatul xidma ci bi nga xam ne ñooy taxaw. liggéeyub màggal gi fii jumaa ji jëm ci sàmm war may barab bi lépp loo xam ni yàlla na fi lépp lu fi lépp loo xam ne yàlla fi ñu soril ko ñu ci liggéey bi nag tàmbale ko ci diiru semaine màggal gi incha allahu rabbi ndax xam ngeen ne su jubee màggal gi da mu xam xidma da koy waajal ànd kook yeneen daara yi nga xam ne jaayante nañ ànd ak ñoom ngir liggéey fii ci jumaa ji liggéey bi tam ñu tàmbale ko ma xam xel ma jiitu leen su ñëwee ànd ko ak ñoom bu demee tam ma xam xel ma agrawal liggéey bi nga xam ne kon dafa mel ni kon fani màggal woon dañ koy yaatal képp ku ñu ñaan ko moom liggéey bi nag ñi ngi ci nii wax dëgg mi ngi dox amaguñ nag benn jafe-jafe góor ñaa ngi siyaar jigéen ñaa ngi siyaar tàmbal nañ def ay sàppe wala wuti barab barab bu mag bi ak yeneen barab yi nga xam tam mbooloo mi toll na fu ñu war a raaye yëpp tam wax na xam ne di contrôler yooyu yëpp bu ci nag dama fay mooy ndax am na ko am ne sàmmante nag la war sàmmanteel su dee góor ndax mel na melokaan ba mu war a mel waaye nag boole kooku itam njub ga bu dee jigéen itam ñu sàmm itam xol itam mbaam mel na war a mel itam ci colka ga nga xam ne sol na lu jot ci xatut yaraaxut waaye tam nag ñaaxaan itam dañuy duubal itam ñu bàyyi leen xel waaye tam nag sàmm itam nag seen sécurité ngir lépp loo xam ne mën naa jur loraange bañ fa juddoo loolu mooy taxawaayu liggéey bi bu dee ci bitig yi itam ak cib biir gi yooyu yëpp ñu boole sàmm ko baa nga xam ne koy jaay eh, du fi ne képp ko am tam nag mi ci pénc bi nga xam ne day wecc manqué tam dañ ko fi comme ni ko baaxoo waxee rek waaye tam nag képp xam ne amul ngànt nga xam ne eh, du handicapé laagul wala dara daal am na kàttan rek soo waa moom tam dañ koy digal mu jéggi bi su fekkee xam ne nag moom dafa xaw a ngànt mooy tam dañ koy bàyyi mu def ci wetu trottoir bi noonu da nga xam ne du am benn jafe-jafe ngir loo xam day jur jafe-jafe ngir man sàmm seen sécurité ndax tamit nag comme boobu dafay bëri desul bàyyi fu neen fu neex neen rek mu toog ndax boo toogee ci bunt bi mën nga indi ay jafe-jafe wala xeet yooyu kon daal liggéey moom ñi ngi ci ñi ngi ko sàmm itam nag ci lépp loo xam ne jaaduwul lu mel ne di fi jaarale ak jur ci penc mi wala Euh, loo xam ne waru fee jaar daal yëpp daal kon liggéey daal fi ne ñu ngi ci jaaykat dana leen may ba léegi ci biir maa ngi tam ba tey ñuy wëy di wër di jaay waaye lii bañ ñoom rek mooy ñu taxaw lu yàgg wala boog ñu fay lal su loolu moom matul beneen jafe-jafe. laa si liggéey la ko daal ci tënk daal ñu ngi jot ci ne incha allah rabbi daal dañ ko taxawee ni ko taxawee bu defee ànd ak tam nag. suñu mbokk yi nga xam ne yeneen commission lañ lu mel ne commission culturelle nga xam ne ñu ngi def exposition xam naa da ngeen fa dem organisation la ci wàlla moom itam mooy taxawee ko da ci war taxawaayam waaye itam waa infirmier yi nga xam ne ñoo itam waa commission sociale ñoo itam ñoo koy taxawee ngir waajal képp koo xam ne am na lu ko fi gaar ci biir jamono yi siyaare wala ba cour bi ak fu mën nekk sax mu gaar ko yi waaye nga xam ne kon adapté war a fa yoo xam te dañuy mën a taxaw def la ci war lépp ca benn garab itam du ko ci war li mi ngi fi nekk incha allah rabbi su laa jàll tam dañ jël ambulance jàllale ko incha allah rabbi ànd ak nag police ak service d'hygiène ak sapeur pompier ci lépp loo xam ne moom itam mooy seen mooy xam nañ ko niñ ko liggéey woon rek ginnaaw bi tàggatee nit ñi ngir ñëw def liggéey bi am loo xam ne si la siwil mën a yem ndax ñu dañuy ñëw rek ngir leeral nit ñi li ñu war a def waaye duñ suñu ñëw jëfante ak ñoom suñu jëfante suñu war a jël war a dañ koy jébbal takkum yi ñooñu def ci la ci war ba tax na ñoom ñoom ñëpp kenn ku ñi tudd nii istala fi ab poste boo xam ne ca nga nekk ngir jàpp na lépp kon ñi ngi ñaan màggal ci jàmm ci la cee ngërëm bi bi jërëjëf